بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخر الآيات suñu borom subhanahu wa taala muy nag ñi gëm yàlla dañoo yaakaar ni nañ wax gëm nañ yàlla rek yàlla bàyyi leen si suñu wax ja rek kon naka yomb bu mu ëpp ndax ku ne mën naa wax gëm naa ci sama génn waaye suñu borom mu ni faw rek nga teg ci seen kaw ay natt natt yooyu mooy nattukaay bi ñuy xàmmee loolu ndax suñu borom mu xam na ba waaye bu suñu borom xamee ni mu xamul naka suñu borom nag moom doy na ko xanaa lim lay war pour ñu gis suñu borom yi naa teg ci seen kaw ay nag ba yàlla subhanahu wa taala wan ba ñu gisal suñuy gët wala yàlla ràññee ba teg ci ñi nga xam ne ñooy dëggu ak ñi nga xam ne ñooy ñiy kàcc ñi nga xam ne ñooy gëm yàlla ak ñi nga xam ne ñooy nafe mbokk yi lépp jurit bu jur sukkandiku ci aaya bi ak aaya yi ñu mel ci xeet ci alquran bari lool war naa boole ci programme bi comme nas lekkoon ban nit laay boole su ma dégg déggoon yàlla teg ma ay jafe-jafe yu diis ci mag ba àttanu ma mag bu jëm yàlla du ma jaaree dem nga def mooy interrogation alaamati suwaal di jëm ko moom bu ma dégg déggoon yàlla natt ma sama benn bët bi fukk sax ba nit laay doon loolu ak jar bi laaj jamono bi jàmm jàmm jékki-jékki laaj sa bopp mënoon su ma jékki-jékkoon yàlla nag ma feebar boo xam ne su may tuur ndox du yomb ban nit laay doon jàmm ak mboolem xeet natt yi nga xam tàmbalee ko ci bi gën a jafe-jafe ñàkk feebar yaakaar gi far lépp loo yaakaar nag ñu la mën a tudd rek naka sa bopp bu la ko yàlla nag soo woon ba nii lay mbokk yi ku nekk ci jàngoro nag yooyu amul ci benn wallahi ne nga góorgóorlu bu baax comme ni ngeen ko waxee xadis Abdoulaye bin Abbas تعرف إلى الله في الشدة في في الرخاء jéem a nag rataxal sa diggante gi yàlla ci jamono ba muy yomb jamono benn métti xamut benn jafe-jafe xamut jéem a rataxal sa diggante gi yàlla ndax bi bu jafe-jafe ñëwee booy jéem a jékki-jékkal yàlla yàlla mën a rataxal yàlla rataxal sa diggante ak mbokk yi bàyyi la xel ci wax yooyu jamono bi nga xam ne dara la xamut jéem a rataxal sa diggante gi yàlla ngir bu dara xewee yow bala ngay rataxal sa diggante ak yàlla yàlla moo lay rataxal sa diggante mbokk yi kenn ku ci nekk ci ñun laa shakka am na lu ne kanam ci ay xeet la wallahi nag mën naa yóbbu ngëm yàlla nag mën naa ci yóbbu ak ngore la goree nag mën naa tax nit saay nag mën naa tax nga jaay sa diine nag mën naa tax nga jaay sa pas-pas natt mën naa tax nga wax kàddu féebal natt mën naa tax nga duum wax loo warul wax natt mën naa tax sax say jaam yàlla du baax wala ya'lamu allahu alladina sadaqu wala ya'lamu alkadibin wala ya'lamu allahu wala ya'lamu alladina amanu wala ya'lamu almunafiqin mbokk yi bu fekkee yaa ngi dund tey ci ay yombal di lekk di naan li nga ci am ci amoo benn jafe-jafe sant yàlla bu baax fa rabbil kaaba am na jaam yàlla yoo xam ne ñoo la gën fuuf ëpp la fir ci yàlla téeméeri junni yoon te jamono jii ñu toll nii ci ay natt yoo xam ne yàlla rek moo xam ne ñu toll ak ñun su fekkee yaa ngi dund dëgg la am nga jafe-jafe waaye li la am tuuti la lu ndaw la nga yaakaar ne asamaan ci mooy waaj a daanu ci kaw bopp te fekk lu tuuti la comme rabbi Muhammad am na jaam yàlla yoo xam ne ñoo la gën a sell fa yàlla fuuf seen poussière sax amaana seen poussière sax bu ñu fayee tiyaaba yi bënd bu mu jógee sa kaw muy ëpp say tiyaaba ya te yàlla mi ngi leen teg ci ay natt yoo xam ne ñenn ñu faat ne ñenn dinañu dund ak yow ci jamono bi ndax soo yëkkati ngay xalaat ci loolu loolu sax nga gën a sant yàlla ndax soo yëkkati ngay xalaat ci loolu loolu gën a tax nga xam bu natt gisee xam nit lay doon ndax loolu du tax li la jaar ci yow ba fàtte ko benn yoon ak nit mbokk yi jamono bii nga kon kenn te am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ne subhaana allahi aala yàlla ne woon su meekul sa mbubb nga dugg ci mbubb ñooñu dajeeg man nga ne ko yàlla bëgg na ndax ñooñu laa gën a wóolu seen jëf sa samay jëf te ñooñu tamit ñu ngi ci ay problème yoo xam ne allahu bihi alim yàlla rek moo xam ay góor moo xam ay jigéen ñoo xam ne lii alalu amal ñoo gën a bëgg bu dee man ñoo la bu dee ragal yàlla ñoo la ëppale bu dee sellal ñoo la gën a def bu dee jege yàlla ñoo la gën a def man yooyu de allahu bihi xëyam bi suuf yéen bi léegi yooyu yëpp nee na ku yàlla nam na ci moom ku yàlla yàlla nar a xelal nar a defar ay mbir xaw mu defal ko ay natt fii ci àddina du dal ci biir bi ak musiba ak lu mu gën a tuuti ak sa xaw ka ay charte ba lépp di tuut sa tànk bi yéen yàlla bi nee na lu dul day nekk nii kafaara kay bàkkaar yàlla yàlla defal ñu ko jamono bi ñu dund mbokk ji xam na say mbokk ji yoo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe amaana lii dañ ko war di fàttali jamono bu nekk waaye léeg-léeg yi ëpp loo gis rek am na solo fàttali bi day yëngal suñu xol ak yi ñu tax a jàpp ni yii ñuy wax de ñu ngi wax ak nit ñi waaye suñu bopp la ñuy waxal dañoo dajee ay mbokk jullit wala yëpp ay mbokk jullit yoo xam ne ñu ngi ci ay kolos kolos yu nekk yoo xam ne xamaa ne yéen bu ñu ko xamee daal ngeen ñaanal waaye ñu ñu leen ci ñaanal yéen ñun dana ci jaar message bi danaa seen téléphone yi léeg-léeg mu am lu ñuy faral di yombal ci jëndul kii dama seet jëndul junni ak juróomi téeméer defe naa quatre cent trente neuf franc moo ci des lépp daanaka huit cent et soixante jours day nekk sama suuf ay jaam yàlla yoo xam ne wallahi waadu kàddu yi ma dégg gëm nañ ñu ma gën fuuf fuuf sax man naa kaa ci ñeent kenn ci tànk li ma koy woo defe naa may mbokk yi ko fekk ci biir ko xam ne dañ góorgóorlu ci diine am doon gën ba amul ñu njaboot sunna daf ko mu muur ba muur kanam loolu gënam ko ci ay at ñu ko fekk ak moom wallahi la am li ma wax yëpp benn baata ma ci gën a màcc sedd bi yëpp maa ko waxal moom ba mu jeex li ma ci gën a màcc mooy su fekkoon te ni joxuma ma lekk joxuma ma naan mooy tax rek ma am problème ko da ngeen jékki-jékki rek ba mën naa dee ngeen ñëw ngeen suuli wala kenn du ma dégg waaye sama sax ba kenn du ko daaw nga taxaw subhanallah rabbil alamin xool ku mën a nekk naan yére baal mu ma defal ko dara leneen lu ci kër gi ci xët borom ko ci xët ko moom ba xam ne ko bu ma ko taal yéen ñu muuraay mu ne mukk muuraay jaral na ko dee xool koo xam ñu ngi am jaboot amul lu nekk amul lu naan amul lu naan lu gudd la wax xam nga lu jeexal loolu ci kër bàyyi lool waaye li mu gën a yitte loolu laa wax kenn boobu am na kenn ku ko jiitu woon ko xam dëkk génn sa ngoon bi dëkk génn sa ngoon ko xam ne ci kadalik nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne nit ñi bu ñu la xoolee dañ lay laaj lu la dal ndax problème yoo xam ne dafa gën a dépassé xel doomu aadama ba daanaka dina ñu delloo xam ngeen loolu nekk na loolu kenn àddina bi sax kaw suuf subhanallah ñëpp day ñëw ñu la xëy ji ba xëy ba tey ah benn kaasu kafe kafe yi jaay ci mbedd kafe yi jaay ci mbedd ci kër moo ñu ci sama biir allahu akbar même ci dërëm tàngal sax xam nga kay waaye foo mën ci dërëm tàngal wala juróomi dërëm saaf yu mu nekk te li tax nag ñoom ñu may nekk waat mooy day bàyyi ko ci biir mi ñu ñu wóor ni ñuy dëgg la ko benn kaasu kafe laa mën ci suba bi yegg ay ñoo naa ngi nii yow yàlla def na xañ da reer na surtout su ñun daara yi léegi sax dañuy togg mbaxal subhanallah léeg-léeg jigéen ñi damay ñëw ñu ne ma dañoo togg mbaxal xale yi dañu mën nañ ko delloo si waat man du ma leen mere léeg-léeg damaa leen mere jébbale waaye léeg-léeg ay yéen damay jàpp wallahi dama leen ñu xëy am na koo xam tey bu dikkoon ci lii dana kaw ko ko dee ci suuf si def ci génn damaa dox ci lenn ba mu yàgg benn waaye romb ma di yalwaan waa ji day soox fekk maa ngi ci activité ma ne ko nga jéggal mu dem ba sori wallahi yàlla xam ne ma toog may waa nan man kenn lekk ñu ngi sama boos te kon ci li ma yàlla nattoo man yàlla nattoo ñu loolu man lii nga doole ma laajee yàlla laaj ma ko wallahi ma toog naa dal la la ko doon soxla ko la lekk bu yàgg sol te man keneen naa ko doon soxla ko xanaa bi ñu mën yàlla ak yéen na dox ko pare mu taxaw yàlla ma di ñaan di ñaan di ñaan li ñu paree mu ne subhanallah bu ko ne dara waaye dara man wala ñaan yi de ñoroon na rek ci man man di taxaw di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba mu rus da nga xool ñaan yi de man waroon na ma rek ci tey bu ma rëccee fu ma jëm ñaata ñu ne ñu ñu ngi ci benn ma xam tey yaa ngi tane yoo xam ne man ñoo xam ci ma koy dund ci ay jafe-jafe yoo xam ne yàlla rek ñoo mbokk yi lan jéem a rafetal suñu diggante suñu borom ci kanam li ñuy neex gis ba dara xëy na ci xale bu ñu bëri wallahi bu fit la jël ci yàlla ci xali ko day fa te ci lay dee xale jël ci yàlla bi ko day fa ne saxaaba yi doon laaj baax man moom lu bon laay laaj ndax xëy mu doon ma bañ kaa laaj ak dee fekk bu ko day fa benn façon fekk la ci biir day saxaaba yi fekk la boo xam ne su day fa rek daanaka man ma ko yàlla jagleel wala boo bëri ñu say morom la كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخاف أن يدركني يريد أن لا الله من لبن ما يلزم من مقدس رسول الله مقدس فكيف من يرجع من الفتنة إليه يكابس أجل يكابس خلقه fitne yi ñëw bu fekkee da laa fekk dëgg wërëndul bu dëgg fitne yi bu ñëwee da ngay kukkale wala yor benn xeer boo xam ne moom lay jub rek dara fit la di ñëw rek mu kër mu daal da ngay lëgër comme dëgëraayu montagne waaye su fekkente ni fitna yooyu daa fekk ndëm gi yëgul comme war a yëg wala préparé woon lii may wax fitna bu ñëwee day am dal ci tëj ci xol bi danañ ñëw dal ci tëj ci xol bi loolay gën a nit yëpp wax ba ñu mu ko yëpp si kaafir dañuy xëy di nga yow sa kër ku jëm yàlla la ala ngoon nga nekk yéen pourquoi parce que fit lay dafa dem ba dépassé la bu ko defee nga yoru diine bu nga arab yi ka ñu ñu dunya nga jaay sa ngor jaay sa diine pour am loo dugal ci sa poche parce que mënatoo dégg ma ci keneen bi des mooy mooy bir bi fit lay day yëpp ba benn bu des naan tey ci la ma yàlla doon xaaral waaye bu dee ku dëgër da ngay jële ni kan jabalil waaxi comme montagne ci kaw suuf dëgër ficc fitna yi ñëwee nga delluwaat ci yàlla alladina gaa yi nga xam ne ida asaabatum bu ñu gën ci seen kaw musibatun fitna ñu leen bii muy dee ak ya ko féete suuf lépp di ay rakkam xaaru ñu li ñu ko mooy inna lillahi ah ñun day nekk ay yàlla ay ko woon moom ah nekk ci la moom dafa naa def yow lu ko neex wa inna ilayhi rajiun kon ci moom la ñuy dellu kon ci la moom abal lay bët bu ko nangoo sànni ko ci la abaloon wér bu ko nangoo sànni ko ci la abaloon jàmm bu ko nangoo sànni ko ci la abaloon alal bu ko nangoo sànni ko su borom ni bu daalika yii alayhim salawaatu min rabbi yërmande fiiraal sutura ak defar ak mbir bu bàyyi ko suñu borom dana wàcc ci seen kaw wa ulaykum rusul jeex yi sax nag buñ jógee ci fitne yi nag dañuy gën dindee bu jëm kaw dafa mel ni fitne yi egg na la bu leen doon yokk ay daal السلام عليكم ورحمة الله والعلم عند الله تعالى وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله